seen soxor mënti toll ak nu seen dëkk sërëx mënti toll suñu cofeel ci yow di gën di yokk mën nañ def lu nekk pour sëkkatal la mën nañ def lu nekk pour xokkatal la ñii di gas ñii di suul waaye ba tey suñu cofeel si yow di gën di màgg suñu cofeel ak suñu taxawaay ci yow doon lu jaaxal ñëpp moo ne day ñi lay noonoo ci xàkki xabi lañu bokk ba noppi soxoree la sa cëru wilaaya bëgg laa diix mbagg te li nga tarbiyu sa kër maam ñoom ñoo ne amul kenn ku ko ci daj ba ngay jóg di taxawu sa waajur ndax teel a xam cëram ñoom ñu ngay fo lekkati kese naxuti béy li nga daj sa kër baay ba tax ñun ñu naw loola ba kenn feesul suñu bët doon ay mustarchid dëgg si Malick loo wax loolu lañu wax nga mat ñu kilifa loo joxoñ ñu topp ko suñu cofeel si yow du lu ñuy naatable fas yéene toog ci sa keppaar di taaxirlu nga yàgg ñoo gunge nga yàgg ñoo tegtal ñu yàgg cee topp si ñun Moustarchid yi dañu la bëgg ci suñu ndax xam nañ ne du dee jaaraama